ay jafe-jafe mais léegi foofu li ñu war a taxaw jàngat ko mooy est-ce que jàpp ñu woon ne ñoom bu ñu demee ba élection deux mille vingt et lu mel noon du am mooy yii xew mooy les listes parallèles ba créer fissure au niveau de la de la coalition benn Bokk Yaakaar léegi est-ce que élire le le le maire au suffrage universel direct bokkul woon ci solution yi nga xam ne moom lañ préconiser pour mën parce que en général le pouvoir a de sur l'opposition sur le plan de l'organisation sur le plan de l'information pour mën a engranger le maximum de suffrage possible nga xam ne raw gàddu gi lu mu néew néew bu dee juróomi voix sax pouvoir bi mën na koo jiite obligé kon président nag acte mel noonu lay posé moom lu mu mën a def ci période électorale rek dañ koy analyser sur le plan politique parce que aussi mënuñu bàyyi bañ nekk à deux mois de la campagne électorale ñu ñu ñu ñu dugal ñu dugal ñu dugal modification code général des collectivités territoriales te ñi nga xam ne ñooy jongante code boobu dafa war a doon luñ war a sukk mën a sukkandiku pour mën a teg ay jalons yu leen permettre ñu am victoire wala wala ñu proposer seen programme population mhm. alors euh, honorable euh, ñu ñëw ci li nga xamante ne wax naa ko sànq investiture yi gis nañu la démb euh, mu guddi lool Eh, ngay yokk li nga xam ne mooy candidature bu Soham Wardini eh, ci mairie de Dakar eh, déposé ko lan moo expliqué choix boobu nga xam ne Union citoyenne bunt bi porte na ko ci Soham Wardini pour diriger la mairie de Dakar. jërëjëf Fatou Abdou dinaa sawar torop pour euh, répondre ci question bi xam nga Union citoyenne bunt bi dafa mos di wax ni que du du parti politique. Union citoyenne outil la maanaam jumtukaay la marto la boo xam ne nit bu soxlaa daaj pont mun na koo jël. union citoyenne bi ñu ko créé dañ ko créé pour delloo si citoyen sénégalais yi au cœur de la vie politique dañ bëgg citoyen sénégalais yëpp impliqué wu ci politique ba nga xam ne politicien professionnel yi nga xam ne ñoom politique moo leen di jox dund ñu puus leen parce que ñooñ ñoo tardé Sénégal il faut que sénégalais yëpp delluwaat ci politique ñu ne nag ku soxla union citoyenne mun nga ko utiliser bi madame Soham El Wardini euh, nekkee di Euh, ci nuñ koy waxatee dans. dans yeewi askan wi dans yeewi askan wi. Mhm. mu am un flou ci choix bi commencé nañ waxtaan. donc moom daasoon na fanaanal bu ñu la déggee. xaw ma ndax daas fanaanal la wala du daas fanaanal mais commencé woon nañ waxtaan. te mhm. ñun ñoo ko approché. ah moom ñëwul vers ñun ñoo ko approché woon ko ne su soxlaa l'outil union citoyenne ñu mettre ko à sa disposition. mu nekk nag une femme très loyale avec beaucoup d'éthique dans son salon elle m'a dit dans le blanc des yeux que moom elle ne sera à l'origine d'aucune rupture que du jël décision boo xam ne dina dem à l'encontre de ñi mu àndal hmm. de Taxawu Dakar en tout cas pour ne pas les citer on a insisté pour lui dire que ci jamono yi mu toll moom moomatul boppam jigéenu Sénégal a ko moom jigéenu àddina bee ko moom ndaw yee ko moom dafa nekk une personne boo xam ne war nañ ko mun a teg comme référence dans l'évolution du combat de la femme au sein des organisations politiques parce que pendant très longtemps dañu teg jigéen ñi à la périphérie même les femmes les plus engagées na n'arrivent pas à occuper un, un certain nombre de postes te ñun loolu suñu combat la aussi donc on a continué à discuter avec elle quand choix de sa coalition bi ñu defee bi seen bi coalition am defee choix mu ooma ñu dem toog on a discuté mu laaj ma qu'est-ce qu'il faut faire ma ne ko y a rien à faire wax naa la encore une fois union citoyenne outil la ku ko soxla danga koy jël pour liggéey dans la justice, l'équité et la générosité. On a conclu que dañ dafay def listam ñu déposer ko. on est allé très vite parce que préparé wu loon dara. préparé wu loon dara. loolu est-ce que dina neex a dina neex a dégg honorable. non euh, non non non non non non bi nga xamante ne valide nañ la candidature de Barthélémy. a tout hier on a tout vu. Hmm. au niveau de notre pôle élection. ça fait trois mois que je suis dans ce pôle mosuma am coupure d'électricité dès qu'on a commencé à faire la liste de Soham Wardini l'électricité est partie ah oui on a dû prendre tout notre matériel on a dû prendre tout notre matériel et nous déplacer ailleurs pour mun a continuer loolu ñan ngeen ko jiiñ noonu jiiñu ma ko kenn jiiñu ma xaw ma kan la ma kan la je ne pense pas que je ne pense pas que Yewwi Askan Wi am pouvoir boobu je ne pense pas que Yewwi Askan bi am pouvoir boobu et généralement quand on appelle la Sénélec ils répondent mais ils n'ont jamais répondu on a été obligé de déplacer. ci wolof waaw parce que c'est bon l'émission déplacer suñu matériel bi yëpp waaw pour mun continuer liste bi mais comme ni ma la ko waxee que ñu gëm ma wala ñu ñàkk maa ci journée bi lañ defar liste bi ci journée bi lañ pare def def def réglage yi. yóbbu déposé nit ñi gis nañ d'ailleurs tard lañ déposé on a on est arrivé à la préfecture il était presque vingt trois heures vingt trois heures trente jotoon na. Mm-hmm. ñu déposé ci anam yi mu gën a rafete daal di toog di xaar ñu notifié ñu bu amee erreur matériel ñu dem corriger bu amul erreur matérielle ñu gunge suñu candidat pour mu dem ville de Dakar. parce que mm-hmm. yaakaar nañ ne war na mun a rempiler en tant que femme. ndax jox doole jigéen ñi ñu continuer liggéey. alors euh, division